asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi ci liggéey bi ni ñu ko baaxoo defee ndaka jekk Moukhaddamatoul Khidma su weeru safar ma saa ndaka jekk dadaa waajal màggal gi gàttandoo ko ci entretien général ci jumaa ji ak lépp loo xam ne wër na penc mi bu ko defee ci biir jumaa ji danañu dindi bépp poussière boo xam ne mu ngi ci kaw. ak bépp lënd change tam bépp pile boo xam ne tam lakk na ak von lettre boo xam ni am na jafe-jafe boo xam bu yàqu su ko defee làmp yi dañ kaw fu maa nekk rek ak lampe roq-roqee rek dañu ko changé donte sax nag euh, duñ toog ab diir ci defuñu ko waaye màggal moom dañ koy waajal su ko defee dem raxasaat fépp foo xam tam waras na ko raxas ngir seetal lépp loo xam ne daal mu ci barab bi ci ay tilim tilim ngir waajale ko màggal gi loolu itam nag yàlla def na tey la ñeenti fan safar la safar ba léegi itam ñi ngi ci ca mel ne soro nañ ci lool xam naa li des mooy ñaan suñu borom mu mot li ñu ak jaamu suñu daal waaj na dugg ci biir waajtaayu màggal gi kem ni ko waa ko defee ca mooy eh, sàmm war may eh, barab bi incha allah bi kon daal ñu ngi lay wax nekkoon kon jàpp na fi ne amaguñ 80 pour cent daal si